mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak réew mi FM daleen nag jàmm ci seen émission démb ak tey ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci uh, waxtu bi uh, tey nag ñu am ti mbégte dalal fii suñu uh, maam Ousmane seen Blay ni ngeen ko déggee aussi si bande annonce bi ñuy waxtaane lu xewoon waaye ba tey ñu mun cee defi jàngat yàlla def itam moom mi ko fekkee woon nekk feek ñun ba léegi yàlla na fi gën a yàgg maam Ousmane Sène Blay ñu ngi lay nuyu di amaat mbégte mu rëy dalal. la ci démb ak ci daa lay fay doom mhm. di fédéli sama diggante yoo xale bu yore ba di yàlla di jul Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di am mbégte lool déggaat la après suñu émission bu njëkk mhm. mu nekkoon émission bu am solo Sénégal di seen mhm. auditeur di yàlla ñu ko commencé ko bisimilahi rahmaani rahim dopp ko si alhamdulilahi rabbil alamin amin amin jëf seen ni ma ko waxee nag tey ñaar ñu ñuy waxtaanee yépp yàlla dogal na xam nga leen muy Mamadou Dia ak Senghor li lay tayal waxtaan mm. wi mooy 13 mai 1963 euh, ci la ñu condamné woon moom Mamadou Dia ginnaaw euh, jafe-jafe yi amoon digganteem ak euh, président Senghor loolu kon moo waral waxtaan wi ndax fekk ñetti fan ñu yegg ci 13 mai googu waaye lu jiitu ñuy ñëw ci jafe-jafe bi bëggoon nañu nga wax ñu diggante Senghor ak Mamadou Dia lana ko nas. waaw xam nga coow yi bari na te xale yi xale yi judoowul ñoo bëgg di wax si diggante Mamadou Dia ak di ko ko Fatick mu joxe résultat yu doy waar am sur la bu daan wax laa weef mu si daan bind. c'est à travers ces écritures si la xam sanga wax dama wax si la région du Sine Saloum Ibrahima Seyo nekk fa ku doon wax Ibou nekk fa ku doon wax nekk fa ñooñu la maaseel bool mag sax tuuti mais maaseel jamono si ay boobu nag benn parti rek moo fi Mota BDS amul yëpp institué Lamine Gueye il ko conseil général boobu conseil général moo fi amoon siège Saint-Louis Lamine Gueye nekk président ba ñu wax Adama Lo dëkk Tëngéej nekk vice président bi en quarante huit nag bii fi tase Senghor bàyyi Lamine Gueye ak problème de Kaolack ne day dellu France jàng jàng lii Ibrahima Seydou Daw ne ko du si dal de toogal yu xeex créé suñu parti ci lañuy créé BDS jàddee ko Dakaaru si benn épp yoo xam ne Diop Abdoulaye góor gu am maana góor gu xay ne ko ala yi de res à rëbës parti bi i samat bàyyi rek am neuf conseils généraux am nag moom huit ak moom muy neuf waa Sine Polo si la bokk Guéambère si la bokk Bourdieu si la bokk donc Mauritanie si la bokk donc Amadou Sy si la bokk loolu tax nekk sénateur de la République française foog jaral ji nekk comme mburoog soow déggoo du ñu werante ànd ànd dawle ak Boubacar Pilla Amadou Séddia André Guiabé Ibrahima Seydou Ndaw mu nekk un groupe sans méthode foog jaral mel lii ci loolu la doxal ñu doxal ba ca cinquante ya Lamine Gueye te jël comme colistier Ousmane Socé Diop premier intellectuel lébu sorte d'Alfort capitaine de cavalerie sorte de Saumur ci euh, Senghor jël Abbas Gueye Mbaye Gueye Diokouni Mouhalim Sey Seydi Asmaali Si nekk syndicaliste bu ñëpp xam nag mun a sañse diblemu dëkk si Ndakaaru ñoo ñoo ànd ñoom ñaar gañe siège le 17 juin 1951 les deux députés du Sénégal parce que premier député Dickou Diouf mu ngi tuddoon Blaise Diagne deuxième Galandou Diouf troisième mooy Abbas Senghor quatrième ak Abbas Guèye ñoom ñaar référendum en mille neuf cent quarante cinquante et un en mille neuf cent soixante six la ñuy war a renouveler mandat bi mu ngi jël Mamadou Dia Abbas Abbas mu jox place bi comme sénateur yow jaay jël sa place abbas du si dal xam nga lébu rek te bu abbas taalibi sëñ Babacar la di seeti sëñ Babacar wax ak moom boo abbas abbas bañ day bëggul dara créé parti ba xale lébu yu mag ànd ak moom commencé amet jo ànd ak moom sa ko gañe ak nguur ja dem à l'Assemblée nationale coow li nag bari PA yi juddu le mouvement la fédération des étudiants d'Afrique doit am di wax indépendance Sénégal commencé poser problème bi France xam li xew it Algérie ngay guerre Maroc am na indépendance Tunisie am na indépendance Ghana am indépendance hmm. boobaa irréversible boo xam ne que mënut ko téye sa loxo ñu def la loi cadre en cinquante six mais nag cinquante sept la ko appliqué parce que à tout temps il y a eu changement de gouvernement. il y a le président du conseil l'AOF qui était huit territoires yu jël leen def leen euh, euh, euh, gouvernement de semi-autonomie hmm. jël Dakar gii ku noo wax Modou Dia ku noo wax Mbiri Tani Dada jël ku noo wax sa frère mooy Mali Jean Marie Codé jël ku doon wax monsieur le général Djibo Bakary jël ku doon wax euh, sa daaw bi euh, aw aw Madeg bi jël ku doon Côte d'Ivoire Denise Denise Auguste Denise jël euh, wax naa benn benn benn jël Hubert Bangal jël bu mel au Niger Djibo Bakary jël Côte d'Ivoire ah, jël fii euh, euh, Guinée Conakry Sékou Touré Haute Volta yu jël Gérard Ouédraogo voilà les huit premiers euh, président vice-président du conseil parce que le président du conseil c'est le gouverneur yu bëri wax Dianak ak Senghor dama jot Senghor jàmm si ay ay xarit lañ woon ay complice lañ woon en cinquante huit yu bëri noonu Senghor dafa daw yaa dafa daw ñu ku xam yaa xam ne jarul daw en cinquante huit parti bi d'accordul si woote wuy wala woote non il est au congrès de Cotonou la délégation sénégalaise est composée de neuf membres ñu woote pour ñu à vote pour le départ immédiat ou pour la coopération avec la France Dia et Senghor ont été mis en minorité par les Ablaye Ly cinq contre quatre loolu tax ñu ne relation lu ko tudd wax indépendance immédiate confédération multinationale yi loolu war na Dia Senghor mosu joxe dara kon Dia Senghor ñu commencé jotee en mille neuf cent soixante pour jógee Congo de Cotonou d'accord jéggi solo daal ñu woote comité exécutif boobu loolu la tudde parti bi bu nu wooyee yëpp comité exécutif bu tudde sa tëggee mu dox Amadou Babacar Sarr Sopar boo ko présider pour parti bi wax wéy doo ja ak Senghor nag surtout ja seen xel sax doole nekkoon mais entre temps ki nekkoon ministre de la France du Soudan Condi Bernard Condi Chanty la tudd. di jóg di ko au pouvoir def ko il c'est le maire de Nice. Senghor def ko ah De Gaulle def ministre de la France du maire parce que ancien gouverneur du Sénégal. xabri bi dalaayof xabri ba yu yow lébu yi Alaaji Ibrahima Diop grand sëriñ Dakar Alaaji Ibrahima Diop Youssou grand sëriñ Dakar da leen war a réclamer l'indépendance de la république du Cap-Vert la république lébu bu dox grand Vianney xaajal bët asad doy la woon. c'est un entrepreneur français di xam ci seeti yan parti moom seeti yan ak Ibrahima Dias ñoom jëfe pour le parti pour voter pour le oui les chefs de canton cela ko dema Samba Sall la il vote oui parti bi gutul lool looloo tax Jacques Senghor bañ parti bi tes bañ xam réew mi tasaaroo ils ont préféré s'absenter le le vingt six août nag bi dogal ñëwee Lamine Gueye ko teeru en tant que maire Dakar Gabriel Darboussi avocat président du conseil de grand conseil de la ak wàll yooyu ñoo ñëpp ñëw discours bi dañu tëggee nag coow la bari lool. ñu toog ba vers quinze heures trente Boubacar Gueye moo mujjee intervenir Ousmane Socé Diop député maire Tëngéej nekkoon ministre nekkoon ambassadeur à Washington et représentant permanent du Sénégal à l'ONU moo moo moom su cumulé de wax président bi Amadou Babacar depuis ce matin yi day coow kon dañuy partir une solution dañ jël un pour le oui et un pour le non Assane comité exécutif d'accord si jël Jolof Diouf de travaux publics de France sorti pour le pour le non jël ku doon wax Doudou Thiam avocat défenseur docteur en droit pour le oui. Hmm. damay wax suur si xale yi. mais mhm. kii jaraaf Diouf keroog li mu xam keroog. noonu mhm. la ko wax. man ingénieur laa su may tabax ay ponk damay xam ne c'est c'est centaine de vies qui sont en jeu. Mhm. kon damay tànn fer bu doy tànn ciment bu doy. tànn lu doy. je lance le défi à tout les Sénégalais comme pour le Sénégal mu la gouvernance nga wax ma ko Sénégal bien dans la dépense avec son port son aéroport et ses ressources humaines mhm. en directive yu woote la wéy la emporté Ablaye Ly Ablaye Gueye Kabadi Thierno Ba mhm. Assane Seck Amadou Bakar Mbow et rendez-vous chez Gabriel Gueye Kébé Gueye directeur d'école la woon dëkk Tëggéej di lébu foofu la formé Tra Sénégal le MJBPS à la tête duquel se trouvait euh, c'était Déna Ndaw ñoom Baye Chack ñoom Massamba Diagne ñoom Atou Ba Ndiaye ñoom Seydou Babacar Diop doomi Ibrahima Diop Grand Serigne Dakar tout le bureau de MJBPS rallié ñoom Ablaye bi parti bi xaw a yëngatu sagoor xarti addukloo gidaan dóoy moo jur Alioune Ndoye ministre de la ministre de la pêche hmm. ku ne sagoor wax Ousmane Ngom danga fexeel mag xale yi dellu si parti bi jox ko it les moyens hmm. gidaan dóoy moo góorgóorlu ba ñëpp dellu si gi sauf aw daan dee na daw Ndéla Dawdat harti Modou Mokhtar Boolwood harti ibba de so dek deux kam de ibba der bu yoddude lot si jooju cinquante jooju siwoon ron le vingt six août moom rek moo si des xanaa ak Maso Assane Maso Diop Assane Maso Diop waaw ak Baro Diop hmm. ñu si bëri ak tab tab tabidu tabidu tabidu wan. tey hmm. yu bëri yàlla jóge fi tey. et bu dee seen rajo woote le vingt huit septembre la wuy la emporté. Hmm. bu nu xëyee nag ñu dem bureau Mamadou Dia léegi bi si presse boobu Mamadou Dia am na chef de cabinet tubaab bu ñuy wax Roland Collin collé moom benn elle la collé bu turam bi xam nga da nga ñëw taxaw si wuti ascenseur bi su ma di ñëw génnee si ascenseur bi nuyoo ñu nga ko bu bureau am. il semblait très enthousiaste le don ci yaa wax ko benn wax si si relance passe et bii ko boot se Trump loolu la doxal ba cinquante neuf ñu la fédération du Mali euh, Sénégal Soudan français Haute-Volta euh, mooy Burkina Faso ak Bénin mooy Dahomey mooy Bénin. fu mu voyé sama mosu jubóo. Et vous voyez que plusieurs, il a été plusieurs fois ministre d'État dans le gouvernement français, ministre d'État la mm. Le dernier poste qu'il a occupé au conseil gouvernement français, c'est ministre d'État chargé de, la santé. Mm. Vraiment, il est au Tchékou. Vraiment, daaw bi dana rocceeku ak jiba bàkk yi judiciaire avait woote non il a été battu arrêté jàpp tëj ko bu des rek Soudan français muy Mali ak Sénégal réuni la fédération du Mali moo tax ki ñu ko wax Senghor ak Lamine Gueye Senghor ak Senghor ak Diagne Diop mm-hmm. amul Senghor ak Diagne Diop commencé jotee en cent soixante et un d'accord jote ba lu ko waral mais avant sotti Diop Diar amul benn problème oh, ku ma da nga wax lu ma xamul. léegi sotti la commencé jote. Hmm. wal jo wal joojo Jaay hmm. di côté de Dia. Diop Dut Thiam. ñu Ablaye Fofana. nekk di au mois de septembre France vacances ñëw comparer suñu hymne national à une musique de fête foraine notre hymne national Racine yaay réunir le bureau national du MCS jël position condamner les propos dawal jooju au mois d'octobre novembre jaar dem tournée économique As, dans la région de Saint-Louis la région de Diourbel fu la yëf yi commencé fës nag hmm. auparavant daf sabar bu sama wax dama seen fekk Mohamed cinq bàyyi Assane deux ñëw fi visite officielle donc hmm. vous rendez compte seen wala ah, quoi le barabu Cheikh même le barabu Cheikh Yane est venu la réception en ijaburi a jàllaat bi moom Senghor moo la wax loolu si laa xam ne coow nga commencé am hmm. ba jabee jabee tournée nag Alassane Ndiaye moo animé tournée ba Alassane Ndiaye Alou hmm. le grand reporter hmm. sportif salaa bokkoon demoon naa nag mais di di Alassane organisé ba bu bu dee benn village wala ñu fay boo boo ak Sadio ñuy jógee équipe bi vingt bu ñëwee si village bu nu war a jëm génn yuuxoo bu ñu wax wax wiw wiw wiw jaa wiw jaa mhm. bu treize heures journal parlé loolu la ñu jëkk a teg su la jaar dans la région du sud du du fleuve bu nga jeexee Dagana ki mhm. doon wax mbakki kat moo fa nekk comment naa def sarkat boobu préfet amagul. nous mhm. sommes une grande gestion ci jardin e préfecture ba ñu ci fa ay yële yu dee waar. yónnoo mhm. Diourbel fu lay fi tëjee Dramé moom secrétaire particulier Serigne Fall. Mhm. jël parole discours Diagne. tuub nee na fi yi nekkoon daal leen woo déedéet déedéet si Ndakaaru te bu woon ngeen wuy suñu sëriñ Fall waxal nag. Mhm. coow la bari lool wax na ne dégguma nag wax na ne. Mhm. ba gars yi si ne sëriñ jàllit ja wax ji wax mu leen bàyyi leen rek. loo yi loo sa yéeg lu gën a commencé daanu gën a métti à ce même mois de novembre nga am tamit une tournée Union soviétique yoo xam ne di nga Senghor ak communiste pour l'armement et la SOSAP SOSAP c'est de pêche pour jënd ay bateau en Union soviétique accompagné d'une grande délégation bu mag a mag plus de vingt cinq personnes bu ñibbisee à l'aéroport mu tagg la l'organisation communiste rendre hommage à leur à leur vision ñëpp xam ne Senghor ak Dia ñu ngi tàggu ñu ngi tàggoo hmm. parce que Dia bu trahir woon Senghor en mille neuf cent soixante Senghor nekk président de la République parce que l'aide de partage s'est octroyée au Mali au Sénégal réunis et donc séparément. Que les Maliens voulaient que Lamine Gueye soit président de la République du Mali à défaut Mamadou Dia. Ils avaient un bloc compact. Les Sénégalais les avaient Lamine Gueye pour puis rejoindre les Maliens. Pour, pour, ils étaient majoritaires, ils pouvaient élire kilwa bai ja ko yàq hmm. yaa ko yàq ànd ak sagoor loyal ma hmm. nommé Amadou Fall état-major Sénégal moo di ma nommé général euh, Soumaré état chef d'état-major du Mali bi ne leen télégramme benn jaa apante Bamako sur le choix de général Fall xas ja j'étais au mois de juillet 60. Le 19 août nag bala may seet bala may àggal saa fee ja Abdoulaye Fofana ministre de l'éducation du Mali et de la santé génn bureau di pour pour ñibbi te fekk ku dox Kéba Mbaye magistrat yàlla yàlla si yokkal seen leer. Kéba la ko waa monsieur le ministre de mu loo réunion mu ko bari yow boo ko duggee woon Mali bu la ko réunion bu ko waaw patron Boubacar Gueye bon bis laa dem na. Sego Ousmane Abdoulaye Fofana qui avait reçu de pas y aller yéeg au deux pour sept dia ñu ne ko janvier de quitter moo ko wal jooju dem ah Sego Sego da nga dëkk assemblée nationale xam nga assemblée nationale am na logement pour le président. Mm-hmm. mu def ñu ne ko Sego loolu génn. Adagwal Diodio ak wër ja ñu ngi jëm au cas de la gendarmerie de Colobane mooy Samba Diir Diagne moom loolu la tudd Colobane. d'accord alors colonel Pierre moo fa nekkoon comme directeur de la gendarmerie. Hmm. foofu nag dawal otoom tàmp na ko nag mën a fas sax mais talaxawul moom Amel Diodio Mamadou Dia ak Sénégal ñi accédé wu à la gendarmerie. Hmm. jubal si bureau colonel Pierre général Soumaré di génn si colonel Pierre boobu ko doon wax Étienne de Bois-Lambert foofu nekk au commissaire de la France nuyuwul leen général Soumaré nuyuwul Dia nuyuwul Lat Dior nuyuwul Mamadou kii Fofana nuyuwul kenn Conté di génn dem hmm. wala joon taxaw ne arrêté la y avait un de jeune colonel doo Tamsir Ba. am na koo xam ne yaay la sa doon nekk na fi directeur de la directeur des sapeurs-pompiers. Mhm. il fait quatre ou cinq. Mhm. silence absolu. arrêtez-le silence absolu. la troisième sommation Tamsir Ba détaché wu séddale Soumaré jàpp ko. yoo colonel Pierre génn dem mettre sous surveillance. tout le logement des Maliens. Ak les les les points les coins administratifs woote gouverneur région yi bu Thiès bu bu bu bu Diourbel ak bu Kaolack di sant sur Dakar professeur Elimane Thiam bu la circonscription de Louga bi doon te seen kaw yo këpp si la si la ñàkk bakkanam ndax démb jëm inspecteur de la jeunesse si la si la si la si la gaañoo ak ñu bari gaañu deuxième août boobu nag législative mu ngi fi affaire étrangère nekk tey si Mali y a un problème juridique comme je t'ai dit parce que c'est indépendance ñu ko joxoon Mali et Sénégal réuni de Soudan frontière dans la Fédération du Mali et dont est séparément coow la bari lool ñu génn si Mali fan boobu région ñu situé le 10 août fal Dia def un gouvernement provisoire fal fal second option septembre soixante soixante neuf septembre 62 waaw ñu dem au gouvernement au mois de septembre boo xam ne jaa ko jiite wala jooy l'intérieur ministre de la justice Gabriel Darboussi ministre de l'éducation nationale François Dieng ministre de l'étranger Doudou Thiam de la santé Ibou Diallo ainsi de suite Donc, il n'y a jamais eu de, de problème entre Dia et Senghor avant 61. Pour en revenir en 61, 62, 62. bi Dia joxe loolu les gens ont pris position ñu woo Alioune Badara nag comité exécutif ñu ne woo ko mais Alioune Badara ña nga wax rapport pour jubale Senghor ak Dia 162 ça devait être au mois d'octobre pouvoir jub ñu def discours ñoom ñaar jóg joxante loxo fóonante mbéy la foo demeure au mois de novembre nag ñu war remanier le gouvernement fu la coow la jóge nag Dia Senghor ne Obey Diop Joseph Mbaye ñu du bokk si gouvernement mukk mukk mukk te soo bay di xar fi ja o bay jéem di xar fi ja jayit léegi ci am dëkk bi li mu yoroon da ko yoreeti ak ak yëpp di de novembre entre temps nag samp def la tra régime présidentiel mais on benn yoon yi ñoom dafa waxtaan si ba dafa bëri yóbbu wàllu jooju ministre des finances et du diable ministre de la justice dàq Obey Diop def Ablaye Fodé ministre de la coopération bu démissionné foofu Ablaye Fodé def ministre de la santé ku wax Ibou Diallo et ainsi de suite coow li bari ba le quatorze décembre ajjuba 14 décembre. Mhm. Dia feebar. à Gorée y a ah, la maison du gouverneur. c'est une de repos Dia nekk fa. le 14 décembre l'Assemblée nationale réunie et convoquée. yaa jógee Gorée ak feebaram yow ak Lamine Gueye ubbi séance Théophile Georges ak si Gossas la. xariti Senghor mbokki Senghor Gossas googu si au cours d'un congrès si la Senghor xamee yaa koddu yaa koddu géwél xaar kuba doo fellu du géwéli Senghor Senghor waa wii xaar kuba ah, ah, ah, kooku ndaw sosu koddu pour la première fois à un meeting organisé à Gossas boo fa xaar booy fa xaar doo fekk loolu ko sama su gis loolu nag euh, sama doom mm-hmm. ji ko mu dox bari wunu mm-hmm. ñëpp dem na tey si parti bii ñoo wax it tees maa si mag maa si gën yàgg yokkuñu mm-hmm. ma cër nag mm. ate yàlla ñu wax sama cër ma mm. maa gën yàgg si parti bi Sénégal laay waxee it ba motion sensible il faut que déposé si bon l'assemblée était mhm. de quatre-vingts membres hmm. quarante et un ici on pouvait on pouvait être ministre et député boo ko defee si àjjuma jooju jaa xam nga am ci koom rek c'est pas votre hmm. le peuple qui m'attend le peuple qui me fait confiance xam nga il avait unique dans son genre fa déggoon France jàngalekat la mm-hmm. sa ëllëg sa samedi quinze ñu woote bureau politique les partisans de Senghor et les partisans de Dia jàpp dafa jàppante bu méttee méttee méttee méttee Ibrahima Sarr jàppante fa Fofana yabate bu métti Moustapha Cissé ak wal jooju coow la bari lool mais on se renvoie à au dimanche seize décembre booba secrétaire yi bureau politique boobu Ousmane Diagne la bu xaadir mhm. ah, le dimanche yu réunion coow la bariwaat mais en définitive ils ont pu trouver un compromis qu'ils vont renvoyer la la parce que quand une motion se se déposée elle doit être votée dans les soixante-douze heures le match étant férié donc vendredi samedi ça devait être voté lundi 17 décembre ñu nga koy renvoyer ba le ba dem tëggee le vingt le jeudi 20 décembre waxtaan ci suñu biir ci parti bi ba xam nu loo def gars tàngoo tàggoo ñibbi yéen a yéen a bureau euh, à la à réunion du bureau dafa Ibrahima Sarr représenté le gouvernement ñu xëy leen 17 décembre yow assemblée kenn desul Senghor ñëw taxaw ci bunte bi moom Mamadou Dia di wax. Mm-hmm. vers neuf heures trente Ibrahima Sarr génn wóoruma nag gis nga ko daal mu génn si hémicycle bi ou euh, si ascenseur bi jub jubal si Dia si Dia ak Senghor. Dia def à sa rencontre wax à votre intelligence les gens ont maintenu la réunion de quinze heures waaw sama ko Dia. Mm-hmm. Dia gesu ne Babacar Ba. boobu mooy directeur de cabinet Babacar mi ngi sol costume présidentiel marron Babacar Dieng bu am lu xam ne ñu ne lieutenant Abi Talib Guèye moom chef de moom garde garde de camp Dia ñu dem Senghor ànd ak Belali jubal si otoom wax ne nag wóoruma dégguma nag gars yi wax nañ ne bay suuf buur a jaay. buur a ko alburi jur ko. nee na hmm. ko nag mais wax bi su wax nañ ko. une demi-heure après la euh, euh, détachement de la un peloton de la gendarmerie ñëw à l'Assemblée nationale. donc Yabi Guèye c'est un basketteur de la GIA sportif yi ba yi armée yi di woon yi sagar ma la ñëw ak tólatoo bi Lamine Gueye woo ko mu ñëw mu Lamine Gueye sol costume trois pièces gris montre à nord yi montre de poche à nord yi ngay ngay seen ceet yi mu génn règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne ko la police de l'Assemblée nationale appartient exclusivement au président de l'Assemblée nationale hmm. yaa bi Guèye boobu wax daf ñetti pas à l'arrière rek te je reconnais qu'un seul chef aujourd'hui c'est le président du conseil ministre de la défense parce que au remaniement de au remaniement de novembre c'est Mamour Dia qui était qui était ministre de la défense am ñu suturé le ministère de l'intérieur jël def def le ministre de collectivité dëkk ku dox Ousmane Alioune Sylla mooy père Talla Sylla gaa beer la ñëw da ngeen di saw si mouchoir yi pour boobu lakk seen liggéey def seen kàll. Hmm. moom alcalation vive altercation entre Demba Diop ak alkali Diouf alkali Diouf était député du de Foundiougne xam nga Demba Diop était violent. Hmm. ci la ñuy jàppee Maguette Lo Moustapha Cissé ak Ablaye Fofana. dugal leen si oto bi Bassirou Diagne ba nga xam si Dakar. Hmm. projet fekk leen si biir. yóbbu lay jóob ñeent à la à la police centrale. ci digg Ndakaaru. nga liggéey da dem këram àggali réunion bi ñëpp a dem député yu dul député yi dañu kër Lamine Guèye hmm. Karim Guèye ki député ministre démissionné Abdou Racine Ndiaye démissionné ñu présenté la sa démission Serigne Babacar Diop ko bind. Doudou Thiam député la woon ministre démissionné ba ñu am quarante sept signature quarante six. bu hmm. des Alioune Badara Mbengue mu jóg jël parole et il condamne le geste de Dia. Waru li mu def war koo defaat nag moom it bu ñu condamné au gouvernement. ak auquel, à qui il a parlé pendant cinq ans. góor góor laa ji ko. kon daal loolu mais mënul démissionné parce que Ousmane Sonko yëpp jël parole mooy wu jëm sa tëggee. Hmm. xam nga vétérinaire dégg français. bu hmm. jóg làkk. te pendant benn siyeel boo gët nga war siyee. siyeel ak Jaurès la def comme je dirais comme je que périssent les habillés et que vive la République. bu doon Ousseynou Diak attaché le cabinet Abdoulaye euh, Alioune Badara da jóg dee ko après moo ko nettali nag dee ko soose mooy si wujj te ja jeexal na hmm. boo siiwul nag bu léegi soo jël la remplacé sa carré politique yëpp fi Aliou Sow Aliou Sow su ko siyee ñu la motion de censure wax colonel Perana hmm. cap capitaine Perana hmm. capitaine la dafa su fekkee ne jot may nañu ko wax su projet bi da wax le rôle que Perana a joué le le le dix-sept le le dix-sept décembre hmm. da dem jëli Ablaye Fouda Moustapha Sy Maguette Lo ak Bassirou Diaye classé ñu que Lamine Gueye jël ak sippe yi bu ñu buddi police centrale oto oto yi du gaare gars yi dañoo dé pare si loolu tëb rek wëndeelu jóg dugg si biir police bi fekk ko wax dugg ne baa foo de wala chef de la sécurité alkaati bu mu fekk commissaire bu fekk teg bu teg sa sa sa put dem bu kenn buuse ñu jël ja ñu jël fo ñu jël Ablaye Fodé Moustapha Cissé Maguette Lo ak Massa Dieng ñu dox dem kër Lamine Gueye. il faut ñu commencé teeru teeru leen seetlu sa nag le 18 décembre au matin Diarra il a passé la journée au dernier étage. Hmm. ak wàllu jooju Ibrahima Sarr Cheikh Mbaye ku doon wax yenn xam naa dafa da bañ a gën a hmm. le 18 décembre nag Diarra moo gën a résidence de Médina mu organiser fa bitig euh, wax ak abala si mu doon directeur de chantier école une belle création qui a disparu hélas boo indi micro yi boobu tax mooy essayé xaajalaat yu mag yooyu mhm. yooyu mooy yooyu mooy ku dox Basso Diop Assane Basso Diop boobu mooy adjoint ñu installé ja commencé wax commissaire Guèye moom commissaire yi Bel-Air am na représentant bu doon wax Cheikh Bamba Guèye de Sëñ Fallou Mbacké la jabari tubaab laa moom ñëw wax ak ja lu si la war joojo Joseph May Aliou Tall qui est déjà ministre de l'information Sodia ak Ibrahima Sall yóbbu leen au petit palais jàppale xam naa bu fi xëyee rek it daal wax xew nu mu mhm. dans la nuit ce qui s'est passé mhm. dans la journée et dans la nuit décembre mhm. ba li au petit palais nag tëj leen jàppaleen fa petit palais moo nekk weti Anse Bernard weti Lido jabari wal joojo la hmm. mu nga dëkk Narbonne Moustapha Daladou Diouf mooy la zone militaire du Sénégal oriental xariti wal joojo la xariti Senghor la xariti hmm. Mamadou Dia la boobu boobu rek boo représenté le BDS à la mairie de Saint-Louis. wa wa da lettre nag bu gisuma nag lettre bu jabar wal yooyu def ci aj bi hmm. ne ko waxal waxal Moustapha Galandou Diouf pour descendre sur sur Dakar pour vous libérer aussitôt Moustapha Diop a été relevé de ses fonctions aussitôt relevé ñu jàppaleen def euh, procès bi au mois d' avril la commencé mille neuf cent soixante trois procureur de la République Ousmane Camara président du tribunal Ousmane Goudiam Abdoulaye Diop Batiré ak Mame Ndéné Ndiaye ñooñu ñoo enquête ja ak wàllu Ibrahima Sall ñoom yëpp nag maam Ndeye Diagne mu ngi see judd mu nga dëkk foofu si biir Dakar ku ko seetoon dégg dal si histoire ba demee wal jooju yo woote Ibrahima Sarr te ko accusé Viol Sarr léeg-léeg bu jóg taxaw te waa dire pour votre défense mu ne j'ai passé la journée du 17 décembre et le président Dia mu ne euh, j'ai passé la journée avec le président Dia je sais que nos amis sont brimés frappés licenciés je fais confiance au peuple sénégalais qui n'est ni lâche ni Sara yi wax Ousmane Camara da ko accusé asseyez-vous sur la Ousmane Goudiam ak Ousmane accusé ba sax asseyez-vous pas de la sur le principe mu toog Ousmane Camara day dund la Sénégal Sénégal laay wax et c'est un um des acteurs principaux de ce qui s'est passé donc accusé ba Sarr j'ai trois questions à vous poser. je ne vais plus répondre à vos questions car on va la, la hmm. je tiens à préciser que j'ai passé la journée du 7 décembre avec le prisonnier je demande la même part de responsabilité. C'est M. Deglolo, donc. Mmh. J'ai passé la journée du 7 décembre avec le prisonnier je demande la même part de responsabilité. Le Je suis d'être ici aujourd'hui avec le président Dia. Le contraire aurait été le monde. Le contraire aurait été le Sénégal, au-delà du Sénégal, le monde. Quand mm-hmm. je suis à Panéa d'Awaka, l'autre n'a pas été bavard, à l'hôpital. Mm. À l'hôpital, le président Bala, ce pas un acteur principal. Moussa Camara était extraordinaire. Il hmm. y comme avocat de diable, pas de terre. de moralité, Monseigneur Tchadou. moo tax diine catholique am na solo lool si ëpp di moral. keroog ba nga fekkee procès ba ban yëg-yëg nga am. ndaxar na parce que Dia ne mérite pas d'être d'être condamné à perpétuité. benn xeex fa am ni la ko waxee entre entre alkaali ak ak Ibrahima ak kii bal tàkku xulóowuñu xeexuñu dara xewul ñu si ñu ko approprié te boo doo boo demoon boo demoon Kédougou c'est à l'entrée aux HLM mi ngaa dooree à à vingt cinq mètres ay barbelés comme à la Gestapo rek keroog keroog ñu ci ñu ci yóbbu ki Kédougou séparé leen xam nga réew mi hmm. xale yi seen njàng dama ko dama ko xeeb hmm. am bu doon wax Jean Valjean je crois c'est le député il a écrit une à Senghor da ko booba umal jooy taa Kédougou condamné yow yaa ngi boo xëyee Philippe Diouf sëy óob ngeen bokk ndékki dangay wàl jojo gi si seen baay lettre ten sant mais kenn mosu ko wax dafa am ñetti lettre yoo xam ne doom ñu ngi war ko seet di lettre boo xam ne xaar doo feen Diouf xaar doo feen Diouf mooy mooy dijaay yi Abdou Karim Fofana bi nekk ministre de l'urbanisme. Mhm. Abdoulaye Fofana jël ko. dafa xëy Aliou Sène song ko. jël mairie Fatick. Mhm. Adrien Senghor jël coordination bi. mooy euh, Babacar ba nekk président de l'union du Sine Saloum Dakar Sénégal. bu ñu xëyee chaque samedi man ministre laa bokk nag. Mhm. ak ñoom bay ñoom fële ba ñoom bay soot bay ñoom ma sàmb caab bu doo samedi doo xëy rek suñu añoo jubal ka juróol Fatick boobu temps y avait un quarto fort Babacar Ba Adrien ministre de la yoon ak Aliou Seck directeur cabinet ak Baara Diouf directeur du Soleil. Hmm. Abdoulaye Segor kàddu bi bidal leen ab bidal leen seen njëkk euh, c'est leur démissionné c'est leur démission elle est émouvante elle est même émotionnelle mais on n'en parle jamais Tamsir Ba mi jàppoon si Souleymane Soumaré son collègue collègue avait condamné mais Valdiodio euh, la la on dans l'armée on n'élit pas son chef il faut avoir l'âme de lappatu pour le faire mm-hmm. Senghor xëy dikkale ko dàq ko directeur de la gendarmerie mais Racine Ndiaye ministre de la jeunesse de l'éducation populaire bu fi toogoon si réew bi un mois chaque mois da ko booleeg Abdelkader Sabar yi dem Union ñu dem Israël pendant deux ans Tamsir Ba Tamsir Ba toogul si réew son fils est colonel dans l'armée. Et il est lieu dans, en ce moment-là dans l'armée. Il est levé 66, 67. bu xëy démission bu bi ne lekk seconde démissionné. Tamsir mhm. ba dafa démissionné. cette lettre d'une grande d'une grande portée morale émouvante. Mhm. Elle a on n'en parle jamais. am na discours wal yooyu discours à Fatick à l'inauguration de de la de, de la place Léopold Sédar Senghor bu daaw soo discours la moom dafa dëggoo français wal jooju il a mis un relief sur les sur les faits saillants du fils du Sultani kon lu mu waxul Tamsir Ba boobu daf ko fàtte hmm? loolu moo xewoon si réew mi wante xale loolu jaar dafa daw di seeti saabu fekk wu daara. Hmm. yooyu noonu la demee jaamu jaag sago sant yooyu la commencé. d'accord seen digg seen différent. leer na. te eh, xam naa ko wax. Uh-huh. loo si mun jiyee gi mu jàpp nga jàpp loo si mun jàpp nga may ko jàpp. Uh-huh. le 17 décembre. l'armée dafa nekk face à la garde républicaine. Uh-huh. otage garde bu ko wax général Daouda Diagne moo ko yore à huit heures Lamine Diakhaté ñëw pour il discuter Senghor pour jàll à vingt heures ba dëgg di suur bi wax na Ablaye Diagne moo ko coupé tëj Lamine Diakhaté si bureau ak caabi dem ñu hmm. teg ñu teg discours yu jaax ñu coupé ko ji am na ñu ne sàmm baa ko yàlla ko yàlla yàlla yàlla yërëm ñoo ko coupé wóoru ma nag. Mm-hmm. coow li bari am la confusion ñu dem palais de la république mm-hmm. je parle de ça au soir ak Ousmane Diagne ànd mm-hmm. dégg li ñoo coow yëpp seconde bi nga tëdd mosal pigeon tëdd vers deux heures du matin le le le le de liaison dirigé par deux bombardiers le colonel deux bombardiers woon jëkkëri Fatoumata Ka responsable des femmes le problème est un problème civil l'armée doit garder son responsabilité Senghor c'était déjà gara borosedi dia borosedi soko sekda mbaɗen liyeɗɗa bawol sukri jaayi boko so procé mo min isotré seconda pisement mbaɗɗo ko yoola koye seet bomo guedde yedesa la constitution daale wax ak yomb il les a convaincu à à quatre vingt Maguette Lo moo ànd ko wax mujj ma am a jëmb ñoo doon Louga bu ngeen dund. te le chef de cabinet Racine ñoo dem sonal nañu tëggee xëy fa la fa la ñu tege discours Senghor vers six heures du matin. c'est lépp calme mais mujj ma am a jëmb mu bëgg a Louga kenn faalewu ko kenn gisu ko on parle pas de Ilimane Thiam si la jàng ba kanam. Fatou Diop Sow gaañoo ba dee ñooñu nga xam ne ñoo joué le rôle ils sont aujourd'hui ignorés oubliés seen jamono bàyyi fàtte ko am na yoo xam tey parti bi parti jigéen ñi pour wax Rose Ndiaye boo jëmale Tamsir Sakho bu Ilimane Sakho pour wax Rama Seck dëkk Wakaam pour wax Ndeye Sylla boo jëmale Daouda Sow

alors Senghor loolu la Senghor wax en la ñu génn nag au procès de Dieng ça a grand procès. Mm-hmm. Dee Boubacar Gari Ousmane Ousmane Camara Ousmane Goudiam Abdoulaye Wade Boubacar Diallo Madame Ter Moussine Thiandou Général Fall Dee Boubacar Gari ils ont fait des plaidoiries excellentes de de moom dañoo làkkee ba noppi wax la défense et le ñu def rapport militaire excellent Badou yaa ngi fi Ousmane Camara ngi fi ci tëj ja nag dix ans ñoom ñëpp ñu dee yàlla si yàlla musal jaam cinq ans sept ans huit ans gisoo kenn les gardes républicains bu am lu am lu am lu daw yaram mooy soo bën a jaay hmm. buur la Mm-hmm. il avait le comportement mu dem si wàll jooju si Alioune Mbaye Paar gouverneur de la région de de de de du Sénégal oriental mm-hmm. ne ko wàll jooju dafa feebar dafa am dysenterie Alioune Paar xaw ma dafa dem xaw ma dafa ay orange yooyu parce que gars yi yëgee il a été relevé d'office d'office mm. ma nag comme doom il y a un peu de du coq peut-être damay jóge fii dal fii parce que d'abord wootuma euh, liir dama wax li ma xalaat li ma am rek wante daal maa ngi lay yëgal ne la mhm. parti bii ñoo wax tey si muy UPS Aminata Mbengue Ndiaye jiite ko maa si mag maa si gën yàgg mhm. li ma wax nag man nag maa la wax mhm. parce que yi des tey si ja fekke ko Ousmane Kamara la Cheikh Amidou Kane ñoom ñaar si des te yooyu du loolu ay homme politique ay fonctionnaire du woon. di la gërëm nag di la sant ko bu loolu bareetul. ñan ñu ñëw la gërëm seen. Euh, bu amee nag euh, loo xam ne dafa des. Mm-hmm. su ma ko laajee yàlla ko wax. jërëjëf seen yëpp di sant yëpp di jaan yëpp nag jàmm ak salaam ñun ay baklat ñoo ñaanal yàlla bàyyi ba sa kanam ak kanam ak kanam. amiin di nuyu nag sa patron Mbagnick dina ko dégg xam naa mi ngi lay dégg. biir bu ko waxee Mbaye Sour Mbaye bu ko présenté à plusieurs reprises ba tey liggéey bu rafet boo def si réew mi. Mhm. ñëpp am si mbégte. mi ngi lay dégg yàlla ko yàlla saxal. amiin dëgëral taxawaayam. amiin seen yàlla bàyyi la ak moom. amiin seen jërëjëf jërëjëf maam Ousmane Sène Blay amoon nañu mbégte lool déglu la tey daanaka laaj yi bariwul ndax li ngay wax macha allah danga nga koo dund da nga koo fekkee moo tax ñëw bàyyi la nga déroulé te macha allah yaakaar naa ne épisode bi nga ñëw nettali amul dara loo xam ni euh, manqué na ci wala muy doon loo xam ni dañu koy wëri feneen mbégte mu rëy la saa su ne ci ñun di jokkoo ak yow ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant. Ah, kon euh, mbokk yi li moo doonoon seen émission démb ak tey ñu amoon mbégte lool dalal ci Mame Ousmane seen Blé euh, nekkoon ak euh, président Léopold Sédar Senghor ak itam président Mamadou Dia ñu doon waxtaanee jafe-jafe bi amoon ci diggante ñaar ñooñu ni ma ko waxee ci ndorteelu émission bi ni ngi ni gannaawaati suba 13 mai ci atum 1963 ci le verdict bi nga xam ni moo ñeeloon président Mamadou Dia wàccoon ñu àtte woon ko fii histoire bi yëpp suñu Mame Ousmane Sène Blé ñëwal nañu ci ñu koy gërëm di leen gërëm yéen ñi doon déglu gërëm itam Diawo Diallo mi fare woon ci machine bi Fatou Thiam nga moone woon ci kàddu gi dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaane leneen ak keneen ñu yendoog jàmm